umma islamique bi yëpp kilifa yu tedd yi fi jóge mooy sëñ alaaji pa Malick Sy ak it sëñ Cheikh Ahmad Tidiane sek di ay kilifa yu amon njariñ ci rew mi ñu ngi leen ni jaale ñom su ko defé nak tay dañu ñew ñom ma ngi ni ci daal ji ma ngi sama bir mbaar mi may jàngal ko tay fi laa nek fas yéene leen a defal ben émission bo xam ay secret lañu joxe dañ daan jàngale xaatim waaye tay dañu joxe secret secret bo xam ni ko jëfëndiko ku ne mën na laa jëriñ ci wàllu wërsëg wàllu ubbeeku koo amoon tëju te ubbeeku ku ne mën nga koo jëfandikoo boo ko defee secret bi nag lépp dafay nekk ci biir ay turu yàlla yu ñuy composé tëgg ko xaatim ak ma ne mën naa ne salaatu wala ma ay ay alquran su ko defee kon da nga ñuy topp ci tableau bi ñu nekk ci ak yéen kon laa secret bi ñu bëgg a jox moo nekk nii dañ ko tàmbali woon waaye dañu wax ne dañ ko def vidéo pour jëriñu waale mboolem jullit yëpp boo ngeen xoolee allahu moo jàpp 66 soo ko dara ba wujudu jaayibu te wujudu jaayibu aada bi moo di 27 maanaam kon boo ko dara ba 27 dafa la jox 1782 ba léegi itam euh, kii bi ñuy wax instrument milliard fidda bi ñu bind boo ko désœuvré dafa la jox 1782 te ku ne xam na ne 1782 instrument milliard fidda yi mooy mooy ci wolof ñaar fukki milliard yu lew ñaar fukki milliard ci xaalis yu moo ba léegi moom 1782 nii soo xoolee am na turu yàlla am na salaatu gu ñuy wax euh, salaatu gi ñuy wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin rafihu ad darajaati soo ko désibré moom dafa la jox adab bii nga amoon muy 1722 moo tolloog kon allahu boo ko der ci 27 27 di dafa la jox 1722 ba léegi ñaar fukki milliards euh, yu leew ci xaalis soo ko adoré dafa la jox allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa fiihu an darajaati wudud soo ko déchiffré moom daf lay jox 1792 ba léegi itam soo déchiffré lii zalma si soo ko déchiffré daf lay jox daf lay jox 1792 zal masita mooy laajal lu la soob loo bëgg laaj moom boo ko déchiffré ci wolof mooy mooy loolu boo ko déchiffré dafa lay jox 1782 1782 yi ba léegi boo boolee li ñuy wax dëhnu ibil maasu baqara diiku dajaaja zabu fidda dafa lay jox 1782 mooy xar nag giléem ak ginaar gu góor ak gu jigéen ak xaalis ak wurus yëpp yooyu yëpp boo ko bindee ci arab boole ko dafa lay jox 1782 kon mën naa ne xaatim bi muy bëgg a ku koy jëfandikoo ko ne mën na laa jural yëpp ba léegi am na aaya Alxuraan bu ñuy wax wa huwa wa huwa maakum aynama aynama kuntum ñu baal ma ci ngelaw bi ma nekk ci baal mi day xaw a ngelaw wallaahu ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ba léegi moom boo ko déchiffré daf lay jox 1782 yi moom la lay jox par 1782 kon nek na adat bu ama am solo ba léegi mën nañ ci genné hadat yu bëree bëri waaye nak tay ñu genn ci rek doyna ndax fi mi bëgg fess ta amna bëgg nañ ñu daggal xadim fi ngeen gis ko bu ngeen ko bëggee liggéey man ko jëriñoo kon dal ci gatal mo nek ni moo jàpp ñaat ci milliards yu lew jàpp euh, isma shaati boo ko darboo ci wajur jaay bu mu ko jàpp salaadu gi ñuy wax salaadu nga xam ne moo gën a gaaw ci wàllu wërsëg ku rawat na jigéen bu bëgg wërsëg lu ci gaaw lool sax ak bayar yooyu ak ay alquran bi nga xam ne mooy waxuwa maxakumu ay wala wantam basir ba moo jàpp mille sept cent am na yeneen adat yu yéeme yu bëri lu ci mel ni ajjaay la dun sam sam ajjaay la dun sam xasun moom ab talsam la boo xam ne ba léegi dañ ciy liggéey liggéey day waar soo ko adadee lii la adad yi di jox moom la lay jox kon nag mbokk yi ñu ma leen xaatim bi leen ci bëgg a daggal ak bu ngeen ko bëgg a jëfandikoo nag ngeen koy jëfandikoo bismillah xaatim bi ni ngay def musallas lay doon defee nii def nii def nii ngeen baal ma ci ngalaw li dama nek ci mbaar mi may jangale ji te waxtu de day feex ngalaw bi de xaw ni lagi bo xole xoolee bi mom moom wax muzallas xaatim bi mom la wax muzallas lagi su fekkee ne da nga ko bëgg liggey ba ci dugal adat bi fi ñuy ngay duggé bismillah da ngay def ci baytu kosu yi bi 590 ñëw fii ci baytul naar yu de 591 ñëw ci baytu bi def 592 ñëw ci baytu 3 bi bi def 593 593 bi nag mooy dugg fii ci digg bi parce que ku ne xam ne 593 moom adat bu yéeme la mooy rabbi abli maalan jasilan ay bëri na ay adat taxuñoo jóg nañ nekk nekk ci nga def fii ba mu ko yi xam nañ àll bi c'est cent quatre-vingt-quatorze ci wàllu wërsëg fii ci baytu xawaay euh, yi def cinq cent quatre fii def cinq cent quatre fii ci baytu maay bi def cinq cent జరుగుతుంది ఫీల్ అవుతుంది నేను గదే ఫీల్ చేసా చేసాకతపైన దిస్ వీక్ లేకపోతే ఏమి మన కలికిన్ సో కలికినే జిల్లా చిత్రపణ మమ్మల్ని చేసాకతపైన ఆన్స్ ప్లీజ్ చేసాకతపైన ప్లీజ్ చేసాకతపైన కేస్ లం రాయో min 782 monika adad yi yépp nga seen yow mi koy liggéey nag soo ko liggéeyee boobu ñu dee sa xaatim ba noppi man ngaa bind benn xaatim boo xam ne bu la neexee danga koy def sa kalpe bu dee wàllu wërsëg nga ci bëgg te ci lay dox sax danga koy def ci sa kalpe wala nga def ko ci sa poos bind ci benn dana pee nga bind ci neuf musallas wala nga bind ci seize seize musallas hmm. soo ko bindee noonu seize musallas yi boo noppee bu la neexee nga gunge nga gunge ko salaatu gii allahumma salli ala sayyidina muhammad bu la neex nga bind ko moom it bu la neex bind ko mille deux cent vingt-cinq ba neexee nga bind ko 1782 1225 mooy mooy fidda boo ko dal ba sept fois waaw kon adat bi moo moo dem ci biir fii kon léegi am nga am nga sa xaatim complète moo nekk nii su fekkente ni nag def nga xaatim bi sa poche wala nga wala nga def ko sa kalpe nga nga bind nga bind benn bi def ko cangaay boo noppee nag am na yoonu sikkar yoonu sikkar eh, bi nag la ñu ne bëgg woon yoonu sikkar bi da ngay da ngay def istixfaar te istixfaar moo di moo di istixfaar ngay def 66 istixfaar moo di astaxfirullahi alazim ba noppee nga def salaatu gii mi allahumma salli ala sayyidina moom la fi dajale wudul moom ngay def salaatu rek ma bind ko salaatu nii rek moom def 66 salaatu gii moom ngay def 66 boo defee salaatu gi 66 ba noppi daa ji def na jublu ci turu yàlla bi nga xam mooy ismu saat bi way boo wé wér nag wax allah ya allah ngay wax nga def allah ya allah nga def ko adam ba nga amone nak moy mille sept cent quatre-vingt-deux moom nga wér yaa allahu danga koy def nag ñetti fan wala nga def ko diiru juroom ñeenti fan mbokk yi képp ko xam nga ni képp xam eh, ni def na ko dina am ko bu baax ci walu wërsëg dana dana bëgg ba sant borom rawat na budé kuy sakku xaliss ak dee ko sàkk xaalis na li gën mooy mu def ci benn def ko ci kalpeem wala it mu def ci benn dugal ko ci poosam yàlla dina ko ubbi ba mu ko kon ñu jàll ak yéen ci beneen secret beneen secret bi nag dafay nekk ay alquran ba lay ak turu yàlla aaya alxuraan bi ngeen bëgg indi dafa denc secret mooy aaya bi nga xam ni mooy suratu al imran aaya bi tuur bi mooy alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al hayyu al hayyu tur ya lima bi rajo lii boo bu ngeen xoolee mbokk yi daf leen di jox adat bi 484 bii itam moom la ñu bëgg a defal xaatim muy am am solo di dox ci walu wasak ak walu ubbeeku ba legi mu andak turu yalla bi ñuy wax hayyu te ya hayyu xayyu bi xayyu moo ñëwaat xayyuumu ñëwaat yaasin xayyu xayyuumu yaasin soo soko soo ko disipte moom daf lay jox quatre 484 mom la jox ba legi mu nek nak mbok yi bëgg na ngeen bàyyi ko xel te ngeen abonné ci chaîne bi nga xamni kan moy mooy sëñ Mamour Sylla Firdawsi Asrar International nga xamni ay njariñ rek la leen bëgg di indil ak ay jàngale wala li ñuy jàngale ci daara ji ñuko ko ñu ko koy ci réseaux sociaux yi mbokk yi bi man nga ko ba légui wa ba légui adab bi di 424 moo jàppaat adab bi li ñuy wax malu nas, boko di jibril daf lay jox lii ba leg nga cent quatre kat al malu nas nak moy alal nit moy alal nit ñi malu alal nas nit ñi ku bëgg am alal ak nit ñi xaatim bi ñuy bëgg a joxe farlu ci amna ay werdu danañ leen ko leral te duñ ci nëbbu dara xam-xam nak dafa am lo xamni xam nga dafa am biir am biti biti gi nak moy li nga xamni ne mën naa génn fépp ñëpp jariñoo te lu mel ni nga xamni njariñ rek la ñu ànd ak lool loolu nag fas yéene nañ génn ko waaye biir ga nag ci biir nekk rek lañ koy wone ku ci bëgg waaw ñu dugg ak yow ci biir nekk incha allah taala léegi 484 yi suñ ko daggé xaatim mom moy dem ci biir wala da fay daw ci biir 3 fois ci biir xaatim bi mu nek xaatim bu am solo kep ko xamni bëgg nga ku bëgg do ñe kenn te yow ku la gis bëgg la nga am wërsëg gu yaatu ak ubbeeku ba doo soxlaal kenn dootoo am bar ci sa àddina li fekk yaa ngi koy liggéey koo bëgg ku ne na ñëw ñu dugg ci xaadim bi xaadim bi nag musallal la comme bi ñu weesu sànq nii la ñuy def nii la ñuy def defaat nii def nii xaadim bi nag soo koy liggéey baytu bi ngay duggee lii nga ci def sacrament kadi dafa wara dam ci biir trois fois kan bi da ngay tegg ba def 481 ñëw fii 481 ñëw fi 482 ñëw fii 483 ñëw fi 484 ñëw fii 485 nyofi kacang dengan cheese wah wit lah wit lah ngin baik kan nyofi tapi kacang dengan cheese kacang kacang dengan cheese mooy terminer xaadim bi lagi ba noppee foo wàccee bi daf lay jox dafa lay jox adad yi yëpp ngay seen tëral ñu xool 481 plus 496 496 496 boobu lu mu lay jox 481 plus 486 plus 495 485 dafa lay jox 484 astaxfirullah dafay tourné ci biir trois fois dina ko ëpp lii boo ko boo ko fois trois moom moom la la jox ndax bëgg xaatim bi am doole moo tax ñu liggéey ko noonu léegi nag bii ci digg bi di 484 soo koy liggéey bu la neexee lii nga ciy def lii nga def ci digg bi lii almaalu annaas ndax ma almaalu naas bi moo jàpp 484 kon moo nekk ci digg bi ci bay baytu xutba bi almaalu naas bu neexee nga def 484 waaye nga def ci almaalu naas bu fekkee da nga ubbi miim gii ci biir nga def fi aajo bi soo ko defee amul lu koy tee faju ci kàttanu yàlla boo ko defee wirdu ko ñaan ci yàlla te doy loo day fajit boo noppee nag mën ngaa gunge lii mu wër mu wër xaatim bi waaye nag wirdu wi quatre cent quatre cent quatre-vingt-quatre jours lañ koy liggéey quatre cent quatre-vingt-quatre jours kon mën naa ne ay weer la yoo xam te ni ay weer dana ay da nga calculer ay weer wirdu ko ci quatre cent quatre-vingt-quatre jours waaye soo ko xasee def quatre cent quatre-vingt-quatre jours tegal yow tàggu nga ñàkk tu ay aaya bii nag bu la neexee moom ngi koy wërale muy alif laam miim allahu laa ilaha illa alxayu alxayum moom koy war a defaat ko fii defaat ci wet gi ayu xayumu yaasin wala def ko dama leen misaal ñi rek bu ngeen noppee nag am na ay werdu yi nag mooy gannaaw boo jullee suba da nga koy werdu 484 da ngay werdu nag mooy aaya bi moom nga njëkk a mooy alif laam miim nekk nii aaya bi moom nga njëkk a werdu muy alif laa ilaha illa huwa al hayyu al qayyum moom ngay werdu 484 484 bu ñu gisee may may bind may bind xale bi jële fii euh, boo bëggee mu ko war a wusu boo mënee jëlee ndeyjoor comme man moo gën yaa ko man bi it baax na waaye bii dafa nekk ijaaba di ko defe nii dafa nekk ijaaba ci biir ko man nga koy def ko mën noo ko baax na waaw 484 bii moom ngay wéddu chaque suba boo jullee suba ba noppi hayyu qayyumu yaasin moom nga weddu euh, bi ba'da salaatu subhi la xaaral ma defal leen ko bi ba'da salaatu subhi moom nga koy weddu hayyu qayyumu yaasin hayyu qayyumu jàppale moom nga koy weddu waaye ban waxtu nga koy weddu ماضي بعد العزاء ولغني وبعد الثلاث العزاء bii moom ngay werdu gannaaw bi nga xamante ni yow julli nga géewe bii moom ngay werdu gannaaw ba ñëw suba bii gannaaw ba jullee géewe di ko def noonu bu mat 484 jours képp ku ko def wallahi da nga ubbeeku ba yëpp ko ci kattanu yàlla ndax lu yéeme moo nekk ci biir ku ne xam na ayul xayum secret bi ci nekk ak màgg gi màgg ak gaaw gi mu gaaw moom lañ tëggee ci biir kon daal koo képp koy werd boo jëlee mën ngaa jël bii secret ka lay doon balay comme ni ngeen ko jàngalee wala ngeen dugal ci seen poos su ngeen ko defee euh, après ngeen bindal ci beneen wala ngeen def ko di ko diwoo da ngeen def benn ci kalbe beneen ngeen def ko di ko diwoo wala ngeen koy sangoo waaye beneen bi mën ngeen ko bind neuf yoon masala si ngeen ko bind neuf ngeen ko bind neuf diko sango Dikosongo ngeen koy jiwo di weddu li nak ay bi diko ko weddu 484 yo jule so ba bo jule ge ba nopi weddu ay bi 484 mbokk lu yomb la te mo matul sax juro mi teme 484 kon yomb naa weddu ci ñi miin weddu kooko man ko ne na ko def ku ko def fi bare ndi di ñu xol lu ci man di am numéro yi mi ngi fofu ngeen wote inshallah taala lo ama am solo la mbokk yi fasiyene won dik rek dafa gën ay lay gën rek mo ngi taxone juk kon ñu ngi leen ñaan jamm تيسات كي نغي تلي واخ نك نين ابوني ci seen boobu di sëñ Mamour Sylla Firdaws Asrar ñu xam ni sama yitte mooy jàppale leen ci yenn secret ndax man oma benn yitte ma ngi nii ci sama daara alquran lay jàngale bu noppi géeyu ci wàllu xam asal asrar ay nit ñu bari dañ fi ñëw di sàkku xam-xam bi waaye nag nit ñi ci boppam ñoo ma xamal ni dinaa di ko leen ko laay bire ci wàllu réseaux sociaux yi ndax jamono toll na fo xam ni lool bëgg a baaxee nit ñi yomb a pour nga baaxee leen ko tey ñun lii dañ ko def participer bu ñuy def ci suñu réew ndax xam-xam lañu am moom la ngeen mën a jàppale kon mbokk yi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu